أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته loolu waa ji di wax ne bu ñu leen nuyootee da leen fay nuyu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi xanaa xamu leen ne fay nuyoo farata la. wala xamu leen loolu. fa iza xuyitum bi taxiyatin farata la de nuyoo mooy sunna amma fay nuyoo farata la suñ la waxee asalaamualeykum wa rahmatullah nga ne parce da ngay am bakkaar. te loolu dañ koo tàmm daal ci sunu mbooloo yi da ngay ne asalaamaaleykum nga gaa mel ne dañ leen a bloqué loolu loolu nañ ko nañ ko nañ ko dindi ci suñu bopp parce que du diine du sunna ba pare bu ñu xamoon li nekk ci nuyoo kon danañ ko njëkkante doon ko def alhamdulilah ñoo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu Huud tey ñuy jël ñetti aaya aaya 9 aaya 10 aaya 11 aaya yi ñuy jël mu nekk ñetti aaya yu nekk sunu kanam ñetti mbir lañu ci sunu boroom subhaanahu wa taala di jàngal ba ca njëkk mooy zammul yaasi wal qanuutu wa xurmatihima aram na sharia ŋàññi na découragé gaaw a découragé yàkkeeku ci yërmande yàlla ab jullit fu mu toll ci kaw suuf dafa war a yaakaar yërmande yàlla xam ne mbir mi du xam-xam mbir mi du kàttan mbir mi du pexe mbir mi du doole mbir mi mbirum yàlla moo tax situation lu mu mitti mitti mitti bul découragé tey jii ci sunu dund su fekkoon ne sénégalais yi gëm nañ yàlla am nañu imaan kon du ñu découragé ci Sénégal bay jël gaal yi di dem ci géej yi di dee comme li dee nii ba toll ne ay weñ mais ñàkk yaakaar yërmande yàlla découragé ah yàccaaral yàkkamti ba ca tegu mooy yàkkamti sa sa sa am am yàkkamti sa am am yàkkamti ne yow da nga war a am fal force léegi léegi wala dee loolu loolu mooy tey sunu dund jullit nag charia dafa ko ŋàññ zammul ya as daf ko ŋàññ jullit du yàccaaral du jullit du yaafuus kenn warul tëdd ci sa kawlal di xaar dund di xaar liggéey di xaar lekk di xaar naan te loolu kenn ci ñun def ko doo gis mu benn sénégalais bu tëdd këram di nelaw di yaakaar dund mukk mukk mukk tëdd sa kaw lal di yaakaar añ wala di yaakaar ndékki abadan moom kay da ngay jóg dem seeti dem këstu ji loolu lañ bëgg ci ab julit mooy ngay jóg di def ñaata yoon la alxuraan wax wa iza faraxta wa iza faraxta fansab soo sëlmalee jógal soo sëlmalee jógal Omar ibnul Xataab fekk na benn xale bu góor ci jàkka ji ñu ne kii aka ragal yàlla kii aka mën a naafila ràkka yi day gudd sujjóot yi day gudd guddee day naafila moom ci jàkka ji rek la dëgg Omar mu ne ñan ñoo koy jox mu lekk ñu ne dëkkandoo yi Omar jël yar fekk ko ci jàkka ji caw ko ba mu daw génn ci biti ak sër bi daal di wodd te ko xam nga dañ doon wodd sër bi wodd bi daal di dañ ñu ne Omar li nag mu ne kii bu ñëpp defee ne moom musiba am dafa war a liggéey heure bi heure liggéey la yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo njëkk a jàngale loolu yonent bi moo ñëw benn waaye ñëw ci jàkka ja ñëw ne ko kër ga dara newu fa mu ne ko abo léegi nag waa ji ne lu ma yóbbu kër ga laa bëgg mu ne ko loo yor kër ga mu ne ko mbàjj mi ngi fa ndaal mi ngi fa ay bagage ne ko dama ngay indi ko bi waa ji indee bagage yëpp buub indi yonent bi de kan mooy jënd mbaaju mi waa ji ne waaw li sama mbaaju mi may sàngoo kuy jënd mbaaju mi kuy jënd lii kuy jënd yonent bi daal di jaay affaire yi bu doon tey la ñu ne da koo jaay cinquante mille bagage yëpp mu jël vingt cinq mille yi mu ne ko demal nga jëndal dix mille yi mu ne ko jëndal ma ci bant ak sémmiñ waa ji dem jëndi mu ne ko lii yóbbul kër ga nga dépassoo ko nga dem ci àll bi mu ne ko 40 jours bu ma la gis ci jàkka ji waa ji dem ci àll ba di taxan di jaay di taxan di jaay di taxan di jaay di taxan di jaay ba mu yàgg trop waa ji daal di dellusi mi ngi leer mi ngi nes nesi mi ngi tàkk waa ji ne ah kii du sama waaja yonent bi ne kii du sama waaja mu ne ah kay mu ne ko mu ne waa li kay alhamdulilahi rabbil alamin alors mooy suñu problème jullit warul découragé foo toll waroo découragé yërmande yàlla dafa yaatu te soo jógee rek yàlla wax na famsu fi manakibiha wa kulu wa ilayhi yàlla waxul fenn nañ toog ci jàkka yi di julli di naafila di jàng alxuraan di jooy ba ñu bu ñu liggéey amul fenn amul fenn dem leen ngeen jaamu yàlla ngeen tëdd di nelaw bu kenn jën seen liggéey amul ci lislaam imal li dunyaaka ka annaka taiisu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada jaamul yàlla ba mel ne suba ngay dee liggéeyal ba mel ne ab robot day mel ne dootoo dee liggéeyal ba mel ne dootoo dee waaye jaamul yàlla ba nga mel ne da ngay dee kon ñaari la ñuy àndale yàlla wax na ci alquran wala tansa nasibaka min ad-dunya xéewal yi la yàlla defal bul ko fàtte ci àdduna yàlla dafa la defal xéewal bul ko fàtte kon yàlla ŋàññi na alias ak lan wal qanuut ak toog rek yàccaaral yaafuus yambare doo def dara mel ne picc boobu tudd maarabu lu nekk dan la koy defal loolu ab jullit du ko def jullit waroo toog yaafuus ñu lay defal lépp doo yëngatu doo doo doo doo yow da ngay toog rek banque say loxo même sax buñ la buñ la lekk sax dañ la koy saxal nii rek loolu moom musiba gën a rëy loolu kon loolu sariya def ko dàq lislaam def ko dàq ñaareel bi mooy zammul faraxi bi dunya wal faxri biha kontaan ci àdduna ak di tiitaru ci àdduna loolu tamit sariya daf ko dàq islaam daf ko dàq tey looloo yàq suñ dund est-ce que xam ngeen ne xale yi li ñuy dem géej ay nit la ñu gis yoo xam ne dañoo dem Espagne ñëwaat commencé ah yëkkati fii ay nangam yor ay 4x4 fii ngandu mbax ne tourné ko nii di dof doflu booy dafa ne loolu mooy dund wala wala nit ñi ni ñu gis ñi nekk Europe suñ ñëwee fii ni ñuy dundee ak nangam nangam ak ñi nekk fii sax nga xam ne yàlla may na leen ni ñuy dundee loolu moo tax xale yaakaar ne ku demul doo tekki te loolu dañ koy tere ab jullit jullit waroo ngand gis ngeen yan Qaaruna ba mu xëyee di ngand ngand lu ci xawmu Muusa te yàlla lim ko mayoon mooy ay gëléem ñooy yor caabi magasin fii gisaguñ ko ko fi am ah est-ce que gis ngeen fi ko am ay caabi magasin yoo xam ne ay gëléem ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy yenu xawaaru na moom loolu la amoon ay gëléem ñoo yenu caabi magasin yi mu denc alal ci da daan génn ci nit ñi di tiitaru gars yi naan ko bàyyi li ngay def muy ngand ngandalu tey loolu la nit ñi di def te loolu dañ koy tere jullit di di wane na yow dëgg-dëgg nii nga mel su nit ñi nekkee un nga nekk cent loolu dañ koy tere àdduna yàlla moo nu bind sàkk ñu indi ñu ci àdduna waaye dafa am fu mu nu limité soo gisee tey ñi sonn lan moo leen sonal lu ñu denc ku sonn rek xam nga lu la sonal loo denc d'accord ngeen wala ku sonn lu la sonal mooy loo denc mais li nga ndékkee li nga añee li nga reeree yor nga ko mais lan mooy sa problème naa am lu ne gàññ bu dee ay kër naa am 30 bu dee compte naa am bu dee ay oto naa am bu dee bu dee bu dee naa am même bu dee ay jabar sax nga ne naa am 30 xutilal insaanu ma akfara doomu aadama dara dayu yatamanna almaru fi sayfi assita ci ban waxtu lañ nekk dafa tàng ñun ñëpp ñoo ngi naan sedd sedd sedd sedd sedd sedd temps yi kay tàngoor bi bu seddee ñu ne trois jours lay xëy sedd wuu non ku doon jooy démb sedd bi tàngoor bi looy jooy tey doomu aadama moo mel noonu doomu aadama dara doy ko lum ko loo ko fekke tey suba mu jooy beneen yaa ngi naan léegi-léegi man dama war a am xaalis boo amee du doy naa am jabar boo amee takk keneen naa am oto boo amee jënd beneen naa am kër boo amee jënd beneen dara du la doy yow yonente bi neen xam nga lan la doomu aadama di ko doy buñ la suulee ci bàmmeel nit ñi ñibbi boo amee trois jours yaram bi nëb bët yi fëq suuf si dugg ci bakkan bi toj suuf si dugg gémmiñ gi ŋaang suuf si dugg biir bi toj suuf si dugg su boobaa nag fii rek lii rek moo lay doy mais doomu aadama leneen du ko doy lu dul lii fii rek la doomu aadama di suuree biir bàmmeel rek bu yëpp tojee suuf si ne la paf fépp fu duufoon suuf dugg fa ba mu ne kej plein dara mënatul ñëw ah allahu akbar su doomu aadama doomu aadama nag doo ko dey ah dem naa terminus nag doy na nag fekk c'est trop tard kontante gi ñu nekkee ci àdduna ngand ngandlu gi di tiitaru di wane wu maay diw maay nàngam maay sàmba loolu amul benn njëriñ balaa ngay xam ne doo dara nga dugg bàmmeel af fa trois jours doo tus doomu aadama warul ngand ngandlu waroo fëgg dënn doo kenn waa ji doon wax ne man maay kan ataarifu na man ana xam ngeen ne maay kan benn waaye ne ko naam naarifu man ant mu ne man ana mu ne ko antal lazi mararta bi marril bawli marratayni kayfa tatakabbar doomu aadama booy xool dundam fi mu tàmbalee ba fu muy feewee doomu aadama warul rëy doomu aadama bi ngay jógee ci sa papa di ñëw ci sa yaay fan nga jaar fu ñuy tuure ndox ah ci ci ci ci waxin bu rafet fu ñuy tuure ndox su fekkee dégguñu olof fu ñuy sawee mu leer nañ foofu nga jógee ci sa papa ñëw ci sa yaay bi ngay jógee sa yaay di ñëw ci àdduna foo jaar fu ñuy tuure ndox lan moo la formé yow doomu aadama ban liquide moo la formé maa in mahin wala dooloo yàlla wax ah wala du loolu ndox mu doyadi la yàlla bindee nit ndox moomu ku mu xëy sa ku mu takk sa yëri da nga koy fóot su taqee sa yaram da ngay sangu yàlla nee na ndox moom laa jël fa jaalnaahu fi qararin makin ila qadrin maalum fa qadarna fa ni'ma alqadirun yàlla nga koy wax ci suratu taariq falyanzur linsanu mimma xuliq xuliqa min ma in yaxruju min bayni sulbi ci xalataal insan yàlla di wax ne inna xalaqna al insan min nutfatin amsaajin nabtali fa jaalnaahu samian basira sunu borom ndox moom mu binde nit ndox mu doyadi la ndox mi feesul xottu gerte kenn bëgg koo gis ci ñun ku mu taq nga sangu ku mu nekk séeri nga fóot yàlla ndox moom la jël def ci doomu aadama xoola place yi mu jaar bi mu jógee ci papa ji xoola fu mu jaar bi mu jógee ci yaay ji di ñëw ci àdduna xoola fu mu jaar jour bi mu demee ba mat ba ñuy doomu aadama boobu di génne xoolal fi mu jaar loxo yi ko njëkk a capté di ko génne dañoo sol ay gants biñ ko génnee ba pare fan lañ ko yónne yóbbu ci lavabo bi ubbi robinet bi di ko raxas soo faatoo bu ñu la tëralee ci morgue bi ñi lay sang dañuy sol ay gants bu ñu paree dañuy est-ce que xam ngeen ne ku sang néew ba pare amatoo njàpp xam ngeen lool ah xam ngeen ne ku sang néew ba pare da nga war a jàpp amoo jàpp xamoon ngeen fiq boobu ok borom xam-xam yi sax dañuy wax ne ñenn ñi dañ naan da nga war a sangu ji janaaba waaye li gën a wér riwaaye bi wér bi moom mooy ki sangu néew ba pare dafay jàppiwaat boobu moo gën a wér. mujibaatul xusl am na borom xam-xam yu ci boole sang ku def ku faatu li tax nit di sangu set am na ñu ci boole sang néew ci riwaaye bu faible. kon doomu aadama bu xoolee dundam warul ngand ngandulu warul rëy warul tiitaru di bàkku di fëgg dënn man nangam man kii doo dara te balaa nga doon xam doo dara ban cër moo gën a tuuti ci yaramu doomu aadama ban cër la ah bëñ moo gën a tuuti su ko yàlla yëngaloon léegi fi nga toog nooy def tey ci suba rek moo ci mujj suñu école kii jaay si damaa xëy gisuma ko ma toog 20 minutes gis rakkam ñëw ma ne ko ana diw mu ne ma bëñ bàyyi metti nelawul biig gis nga bëñ bàyyi metti nelawul biig bëñ moo gën a tuuti ci yow su ko yàlla yëngalee musiba am ñu jege si ndax yeneen mbokk yi am place kon zammul farax bi dunia dañoo ŋàññi di kontaan ci àdduna wal faxru biha ak di tiitaru di njëkkati dënn dañ ko tere ñeenteel mooy bayaanu kamalul mumin arruhi al mutamassil fi sabri wa shukri sunu borom subhanahu wa taala dafa am ñaari mbir yoo xam ne dafa ne loolooy tax ngëm yàlla doomu aadama mat nit dëgg-dëgg jullit ngëm yàllam kañ lay ma dëgg-dëgg mooy su boolee ñaari jikko as sabru wa shukru soo boolee as sabru wa shukru rek sa ngëm mat na mooy nga mën a muñ ngay sant yàlla moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu xëyee jàkkaarloog saxaaba yi mu ne leen a muminuuna antum ndax yéen gëm ngeen yàlla Omar ne ko naam gëm nañ kay a muminuuna antum qaala Omar naam Omar ne ko waaw waaw ñun dañoo gëm dëgg dëgg ngëm yonent bi ne fama alaamatu imaanikum luy wane ne gëm ngeen yàlla mu ne ko narda bil qada wa nashkuru fir raxa wa nasbiru alal bala ñett yi soo ko boolee sa ngëm yàlla mat na loolu mooy lan narda bil qada lu yàlla rëdd ci ñun nangu nañ ko te loolu mooy al iman kam arkaanul iman ponki ngëm yàlla ñaata la juróom benn gëm yàlla gëm malaaka yi gëm yonent yi gëm téere yi gëm alaaxira yowmal xiyaam nga gëm dogal bu neex loolooy suñu problème tey ñun nangu nañ gëm yàlla ah waaw waaw nangu nangu nañ gëm yonent yi waaw waaw yonent yi yàllaa leen yónni téere yi nag ci yàlla la bàyyee ko yonent yi yàllaa leen yónni alaaxira yi léegi ñu dem waaye bu dogal ñëwee surtout nag bu dee dogal bu naqari non loolu mënul nekk c'est pas possible mënul nekk ah pourtant yàllaa ko dogal ci yow ah kay mën na nekk ni yàlla dogalee ci yow lu neex noonu lay dogale loolu tax ngëm yàlla surtout al imaanu bil qadar ak garaaw nangu nañ lépp mais boobu dañ ci sikki sàkk ñu bari ci ñun dañuy dute néew na ci ñun ñu yàlla di teg yenn nattu yi ñu nangu ko ngir yàlla narda bil qadar waaye wa naskuru fi raxa su neexee nu sant yàlla loolu tamit néew na de waaw kii kay liggéeyu ndeyam la sëriñ bi la jàng bi la doole ji la diw la nangam la li yàlla di wax rek wa iza rakibu fil fulka daawullah muxlisina lahu diin fa lamma najjaahum ilal barri fa iza hum doomu aadama moo garaaw la ilaha illallah doomu aadama day nekk ci xat-xat yàlla rek lay woo yaa rabbi yaa yaa di woo yàlla façon tur yu nekk su ko yàlla dimbalee ba mu ne tëpp mu rëcc loolu xam nga lu muy wax bu doon du diw bu doon du sàmba bu doon du gàllaaj gi bu doon du téere yi waaw waaw waaw bu dee gaal la bato bato bi yàlla rëccal ko nga dégg gars yi ñu ne capitaine woo wadi garaaw oo capitaine soo naan konko mi ne fa mi maa yi waaw bu doon du capitaine bi ñu ñëpp dee nañ mais saa waay moo mën a dawal dafa maîtriser volant bi laa la wax prise oto bi ne ko kërëccee ñun ñëpp ñu rëcc fekk yàlla la du kenn yàlla moo leen rëccal ñun ñëpp loolu mooy suñu problème néew na yàlla nattunu nu muñ néew na yàlla defal nu xéewal nu sant ko narda bil qada wa nashkuru fi raxa ban mooy ñetteel bi nasbiru alal balaa bu yàlla tegee balaa suñu kaw ñu nattu balaa ñu nangu balaa bi ñu xam ne yàlla moo ko indi ndax kat fa amal insaanu ida mabtalaahu rabbuhu fa akrama wa naama fa yaqulu rabbi wa amma iza mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi doomu aadama noonu la mel inna al insana xu- xuliqa haluan iza massahu sarru jazuan wa iza massahu alxayru waaye nag ñooñu yàlla def seette ne illal ñooñu bokkuñu ci ñooñu bokkuñu ci seette la yàlla def foofu kon sunu borom subhanahu wa taala dafa def ngëm gu mat sëkk sëkk sëkk nekk ci yii mooy lan as sabru wa shukru wa bayaani jaza yi yàlla leeral tamit nag ci aaya yi ñu war a jël képp koo xam ne am nga ñaari melokaan yooyu da ngay muñ da ngay sant yàlla yàlla nee na sa fay ëllëg mooy aljanna nee nañ benn waay dafa ñaaw ba ku mu xool sax nga ñaaw ndax ñaaw bu mu ñaaw yàlla natt ko mu am jabar joo xam ne jabar ji daa rafet a rafet a rafet moo dàq ci àdduna bi waa ji xool jabar ji ba caag rek ne ko maa ak yow àjjana lañ jëm jabar ji de ah dijaay bi ndékki li ndékki li neex na lu tax nga wax loolu mu ne yàlla moo ne assaabir wa shaakir aljanna lañ jëm ku sant yàlla àjjana nga jëm kuy muñ àjjana nga jëm jabar ji ne ko ah léegi ñun ñaar lañ lañ def loolu mu ne sama ñaawaay bi da ngaa muñ rek mu ne wax nga def wax nga dëgg de yow am nga ne moom wax dëgg yàlla gis naa ñu la dàq nag mu ne sa rafetaay bi chaque jour maa ngi sant yàlla kon asabir wa shakir àjjana lañ jëm gis nga chaque jour doomu aadama su ko yàlla defee xéewal na sant te gis ngeen xéewal du tuuti fan yi ci corona bi am na benn tubaab dafa jàngale dars bu rëy Allemagne Allemagne xaw ma Angleterre lan la dafa corona yóbbu ko ci benn hôpital ñu ne foog mu jënd oxygène pour nooyi mu mu jooy hôpital bi yëpp jooy ndax dañu yaakaar ne dafa amul lu mu jëndee wala dafa ragal ne day dee wala wala wala wala médecin yi ko doon assisté di jooy ndax jooy yu métti yi ñu ne ko lan la doo dee jëndal rek mu ne jooyu ma loolu de damaa xam ne maa ngi noyyi tout le temps jënduma oxygène tey jii benn 30 secondes rek ngeen bëgg maa fayee ko oxygène may noyyi pour fay te lee yëpp yàlla moo ma doon defal may noyyi fayuma ñun ñii ñëpp ci biir jumaa ji ci biir jumaa ji laa waxuma ci biti ñun ñi ci biir jàkk ji kan ci ñun moo noyyi ba sant ci yàlla ngelaw li ngay noyyi pour yow sax fal force la da ngay noyyi nu mu la neexee da ngay xool nu mu la neexee di déglu nu mu la neexee di wax ni mu la neexee di dox nu mu la yooyu doo ci sax sant yàlla doo ci bàyyi sax rendre compte ne yàllaa la ko may sama point damay wax fal force damay noyyi fal force damay xool fal force damay déglu fal force damay tëdd fal force damay yeew fal force suñ la ne bul dem sax nga ne damay dem fal force yow mun nga ma téye yow ñëwal ah ndeysaan allahu akbar te bu neexoon yàlla doo génn kër gi de wala yenn saa yi nga dégg ñu ne kon nga koy wayri yàlla tudde allahu akbar ndeysaan xoola xéewal yooyu kenn du ci sant yàlla te pourtant yàlla la de da ngaa defe ne bët bi fal force rek dafa war a xool ah nopp yi fal force dañoo war a dégg da ngaa war a wax fal force da ngaa war a di lekk fal force muy rees fal force yàlla la de am na benn secret boo xam ne bu ko yàlla laaloon rek nga pare kon nañuy sant yàlla ci xéewal yooyu nga xam ne dañuy yaakaar ne du dara foofu la sant di commencer sant mi ngi commencer nga yëg ni bi ma yeewoo yàlla la moo tax booy tëdd looy wax yàlla allahumma inni aslamtu nafsi ilayka walja'tu zahri ilayka la malja wala manja minka illa ilayka yàlla maa ngi lay jébbal sama bopp soo yeewoo nga ne alhamdulillahi allazi radda alayya ruuhi wa afaani fi jasadi maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma delloo sama ruu ah bi ngay nelaw ana ruu gi ah ndax foofu la mënu faa xew ah ñaata nit ñoo tëdd ne gaa yi fajaram insha allah fajar ñu yeewu di la yee fekk dem nga bu yàgg ndeysaan moo tax mbokk jullit yi dafa am yu ndaw yu ñuy xeeb te loolu mooy diine te yooyu boo ko tàmbaliwul ku santul yàlla ci yu ndaw yi doo sant yàlla ku muñalul yàlla ci yu ndaw yi doo muñ suy mag yi ñëwee loolu mooy dëgg su ko defee borom bi tabaraka wa taala nee na muñkat yi ak santkat yi ñooñu àjjana dong laa leen jëme seen fay mooy loolu mooy bil maghfira dama leen di jéggal waaye wal janna incha allah su fekkee ne sunu jàngkat yi ñëw nañ ñu jàng su fekkee ne ñëwuñu ñu daal di dem amuñu jàngkat aywa ahlan jox ko micro bi ah garaaw ba beneen yoon rek tey moom xam naa ne moom beneen yoon ne ngay ñëw di toog ne wala in adaqna al insana minna rahma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن الذين ذاب السيئات عني la yaqulanna ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة وأجر كبير barakallahu fik jazakallah léegi nag fi mooy sa place dégg nga soo ñëwee da nga ñëw toog fi alhamdulilah yal na na yàlla fayal yiw mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne wala in adaqna al insana minna rahma yàlla day feeñal jikko doomu aadama doomu aadama léeg-léeg benn waaye xoola ne la yaay traître waaye doomu aadama traître la lan mooy traître ah warkat inna al insana sunu borom subhanahu wa taala nee na doomu aadama kaffaaran jahula yéeféer la day sakk jëf mooy traître waaye ignorant la ku réer la xoolal doomu aadama li ko yàlla defal yëpp fan la yàlla tàmbaleeg insa doomu aadama lu mu nekkul dara hal ata alal insani hiinun min ad-dahri lam yakun say an mazkura say an mazkur allahu akbar yàlla nee na am na jamono boo xam ne yow amoo gaay yi yéen ñi ci jumaa ji 1901 fu ngeen nekkoon kan moo ci judd 1901 nekk ci sa loxo ah deux trois 1904 5 6 7 fu ñu nekkoon boobu lam yakun say an mazkur nekkoo woon dara lu ñu mën a tudd ba ci ay année nga yàlla amal la allahu akbar ci amin bu doy waar di la sàmm di la dundal ba nga xëy na këng taxaw ngay weddi yàlla te yàlla wan na la ne maa la amal dinaa la rey te su ma la reyee fii laay jaare yow doomu aadama di weddi loolu yëpp nee nañ benn waaye jën jën jën bu ngand bi dafa ñëw jë- dajale jën yi ci biir géej gi naan leen nu moytu leen am na benn waay moom dëkkul ci géej gi ca suuf sa la dëkk gaal la yor yor na benn buum bu gudd ca catu buum ba benn weñ la ci def su ñëwee day jël lekk def ko ci ne da leen di may mayu leen de moytu lekku lekku leen ko daa am kawar am ay bët am ay nopp mu melal melal melal melal ba pare kan la doon melal jën yi daan na ko waaye da ngay sóob waaye ak ko daf benn benn nit ko daf ñoo mënal dara allahu akbar waa ji ñëw daal di sànni ngandum jën daal di plongé daal di ne kaay leen waa ji indi na lekk daal di ne cross daal di lekk mburu ma onze bi dugg fii mu ne lonk na ma de ponkal mi génne ne ko xam nga foo jëm da lay génne ndox mi su la génnee ndox mi boo gisee suuf rek xamal ne dee nga soo gisee suuf xamal ne pare nga yow dootoo duggaat ci ndox jën bu ñu ko génnee ci ndox mi fu ñu ko jëmee ah ci kaw ci kaw lu fa nekk suuf bu gisee suuf si ci biir yi la jëm mu ne ko gis nga waa ji bu la jàppee lu muy njëkk a def sa caaxoñ bi lay dindi nga xam ne pare nga mu ne mu dindi sa waasintóor yi dagg sa geen yi car-car yi mu ne bu paree da lay taraase am na foofu ci moom benn marmet foofu la lay teg nag dootoo delluwaat géej mukk mukk léegi nag bu ñu jàppee jën bi jën bi di gis fu ñu joxe mu ne lii la waa ji waxoon de lii la waa ji waxoon de lii la waa ji waxoon de fii la waa ji waxoon de ba waa ji ne yekk naa reer ñëw leen ñu reer mu ne lii nag la waxoon nag mu ngi nii nag pare na gis nga moo tax doomu aadama naka la ko yàlla defalee yërmandeem naka la yàlla di ko indilee xéewalam doomu aadama di weddi loolu doomu aadama yàlla nee na wala in adaqna al insana minna rahma doomu aadama su ma ko indilee sama yërmande anilnaahu rahma ginan wa siha ma may ko alal may ko wér nga gis muy ngand ngandalu di ponkal ponkallu di ne man la di fëgg dënn summa nazanaha minhu yàlla nee na reelee ma may ko ko ba mu mbëru ba beew ma ne ko caset nangu ngay gis innahu la yausun kafurun allahu akbar su ma ko nangoo xoolal tey suñu président yi jël leen rek Ablaye Wade bu leen dem sax feneen bu leen Ablaye Wade Ablaye Wade bu mu fi nekkee nekk nguur gi lu mu doon def di ngand ngandalu bañ ko follee ba léegi ba fii mu toog léegi fu mu mujj su ma nasaana minha ma nangu ko ci moom léegi après lu ma amati ah lu mu tekkiti ci réew mi ala doomu aadama yaa ngoog nag est-ce que moom kese la du moom rek de amoon na fi ay milliardaire fu ñu mujj gars yi sisir leen banque yi nangu liñ yor fu ñu mujj xamoon naa benn waaye damay bañ a wax turam fii ci parcelle la dëkkoon xaw ma golf ci temps Abdou Diouf la woon PS xaw ma kosolan kooku su daan dox lu gën a tuuti tuuti téeméeri nit lay àndal laa ilaha illallah pees daanu ay ati at benn jour ndeysaan ñu dem benn meeting ma gis ko àndul ak kenn kenn doo nga la àndal garam bu bu weex bu mu sol laa ilaha illallah muhammad rasul waa ji laay xool keroog di jàng ma xool ko may koy jàng beneen bi principal laa dem di seeti malade ma toog nii gis kenn koo xam ne ci réew mi li mu nekkoon ma gis ko principal munul dox dañ koo téye ma xool ko ma xam ne kii diw la munul taxaw dañ ko téye téye côté bi téye côté bi muy muy karaj karaj ma ne allahu akbar yàlla yàlla yàlla yàlla du morom yàlla du morom mbokk yi gis nga li ñu yàlla may daf ñu ko dénk su ko neexee léegi mu nangu ko te su ko jëlee rek nga xam ne yow doo dara kon lan moo fi jar ngand ngandul gi lu fi jar bàkku gi li fi jar tiitaru gi li fi jar man du ma seen moroom du ma wax ak ñoom duma duma duma duma duma duma duma duma duma lu ko fi jar lan la lii la yàlla jox bu ko yàlla nee cas ndeysaan allahu akbar léegi nga mujj même bu dee wér gu yaram gi bu ko yàlla jëlee rek ku la seeti de kan ko dee min jeexitoon min ngarti kon alaa doo buri alaa moo buri to allah ñi dégg tukulóor dégg nañ loolu waaw mais kan ko dee min jeexi min jeewo yi ma kono do min ngoppimo do alaa do alaa moo buri to allah léeg-léeg nga am malade nga dem seeti ko bi nga demee ba nga gis ko nga ñibbisi ci yoon bi ba ba ngay egg sa kër da ngay da ngay da ngay découragé lu tax ngay découragé xam nga ne kii pare na ci ceeb pare na ci ceeb pare na ci ginaar pare na ci ay yére pare na ci jabar pare na ci doom pare na ay xool sa malade rek xam ne kii pare na su boobaa nag buñ la laajee nga ne ah Sénégal nag moom dañ lay seeti fekk malaaka bi mu ngi taxaw ñu ne la mu ngi tane nga ne waaw mu ngi tane kay te malaaka ba lañ fa bàyyi muy préparé indaale sér yi weex yeeg tout allahu akbar aadama bi mu feebaree xam ngeen aadama alayhi salaam dafa feebar bi mu feebaree yàlla yónni malaaka yi nañ ko rey malaaka yi bi ñuy ñëw ñu ngi indaale bagage yi ñuy sangee néew ñu dajeeg aadama mu ne doom yi dem leen ngeen utal ma fir wi aljanna moo ko lekkee rek dinaa wér doom yi dem di ko utal fir wi ñu dajeeg malaaka yi ñoom xamuñu malaaka yi waaye xala malaaka yi xam nañ ne ñii doomi aadama lañ ana seen papa ñu ne mu ngi foofu jëkkër ga fu ngeen jëm ñu ne dañ koy utal fir wi malaaka yi romb leen seen yaay xawa bi mu séenee malaaka yi rek daa daw lëng aadama ndeysaan daal di koy koot aadama ne ko xawa xalli bayni wa bayna malaikati rabbi xawa mu ne waaw mu ne ko bii paa moom doo ma indil problème da ngaa fàtte àjjana yaa ma lekk la woon garab bii moom dimbali ma rek taxawal ne bàyyil bàyyil bul dox sama digganteeg malaaka yi génnal jóge génn ci génn ci génn ci waaw bu ma indilaat beneen problème tey sama ñëw ci kaw suuf yow mii la ndeysaan awa daal di reculer malaaka yi daal di koy rey sang ko sang ko jullee ko suul ko gestu ci doomu aadama yi ne leen lii mooy seen sunna bàyyi ku dee nii lañ koy def loolu mooy sunna doomu aadama ku dee yàlla ni mu terale doomu aadama mooy dañ koy sang sang ko jullee ko suul ko hmm? kon doomu aadama ngi noonu xoolal li mu doon jaay lépp fan nga mujje dañ laa sang fan nga mujje dañ laa sang fan nga mujje dañ laa jullee fan nga mujje dañoo gas pax ba mu xóot daal di lay suul ñibbi kon an léegi ana li nga doon jaay ah fa kam min malikin rufiat lahu alamat fa lamma ala maat fa kam min quburin tubna wa ma tubna fa kam min maridin utna wa ma utna loolu nag benn riibe la boo xam ne boo ko bëggoon firi du neex fa kam min maridin utna wa ma utna fa kam min quburin tubna wa ma tubna fa kam min malikin rufiat lahu alamat fa lamma alamat dañuy jël benn waaye di ko takkal ndomb tànk garaat di ko takkal garaat yi lu ci lu ci jiitu ban garaat moo njëkk ci garaat yi wala yéen defu leen garaat dinaa dégg ñu naan xaw ma sergent caporal après sergent après après après ñii dem ba ne lieutenant après lieutenant chef après après bala colonel après ñu ne général après ñu ne amiral après maréchal après dee ah après maréchal dee ndeysaan gis nga de yàlla day bàyyi nga yéeg rek nga yéeg rek nga yéeg rek ba nga dem ba ci kaw rek mu ne waa wàccal nag allahu akbar loolu mooy fa kam min malikin rufiat lahu ala maat fa lamma ala maat yàlla da koy bàyyi ba mu kawee ba gaa yi naan yee bu ko wàccal waaw benn dëkk dañ doon tànn imaam ñu ne imaam bu ragal yàlla imaam bu musta mooy yàlla imaam bu sell imaam bu set imaam bu imaam bu imaam bu imaam bu imaam ñu jël imaam boo xam ne amul ci adduna bi ñu ne imaam boobu lañ bëgg ñu defar benn podium ñu ne léegi ku yéeg rek su la waa dëkk bi xamalul dara yow yaay nekk imaam ñu indi xale góor yi xale góor bu yéeg rek xale jigéen ñi la du wàccal nga wàcc ba xale yu góor yi dëkk ba ñëpp jeex ku yéeg rek moo eh nga ne ah wàcc paa yi yéeg paa bu yéeg rek meer yi ne la eh eh nga wàcc ba paayee jeex benn ma benn paa moo fa des bu tudd Moussa bu màgget kenn xamul ko dara moom ak ñëpp mu yéeg ah kii de ah kii de kon mooy imaam bi ah kii kat kenn xamul ko ndax moom mag sunu papa yi moom mag sunu maam yi léegi benn xale daal di ñibbi maamam mu ne ko kan ngeen fal mu ne ko góor gi Moussa mu ne góor gi Moussa xaaral ma ñëw mu ñëw fekk paa bi fi ñu koy waaj a defal kaala mu ne ko eh alaaji Moussa mu ne ah mu ne ko wàccal dëkk boobu noonu lañ def amuñu imaam parce que kat nattukaay bi du foofu ñoom li yàlla ne nañ nattee loolu lañ bàyyi moo tax ñu am problème moo tax gis nga doomu aadama yi saa yi ñu bàyyee lu yàlla wax rek ñu indi ñoom lu ñu wax dañuy am problème suñu borom nee na doomu aadama su ko yàlla defalee xéewal defal ko yërmande defal ko alal defal ko wér defal ko lépp doomu aadama de commencé di bàkku waaye bu ko yàlla nangoo ci moom nga gis mu découragé au lieu mu sant yàlla bi ko yàlla mayee mu sant su ko yàlla nangoo mu muñ déedéet day commencé di seeti ay sëriñ waaw waxoon nañ la bu- da ngaa bañoon sangu da ngaa bañoon takk gàllaaj da ngaa bañoon seeti diw da ngaa bañoon dem fële xamoon nga ne dina la dal ndax yow waxoon nañ la bi nga amee demal ndax ndax ndax ndax ndax ndax laa ilaha illa léegi nag nga boole ñaar mooy li may wax chaque jour ku feebar da ngay gis ku feebar wala yee ñu defal ko lu baax ñu dem di ko bokkaale loo di ko rey di ko reyal ay xar di ko sang deret di ko takkal ay gàllaaj di ko wëral ay tuur ah ba mu dee noonu nag dem safara yooyu ku ci dee safara nga jëm ku sangoo deret wala nga wër ay garab wala nga takk ay béjjën wala ñu sang la ci ay sëlëre yoon ba nga dee ci terminé ndax ci bokkaale nga dee te yàlla nee na ku dee ci bokkaale foo jëm innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu naar yàlla nee na safara nga jëm ah kon kay bi nga feebaree da nga nga faju faju bu dagan bul bokkaale muñal feebar bi boo dee nga dugg àjjana waaye nga dem di bokkaale ba nga dee ci te ñu ne dafa war a faju waaw waaw ndax faju moom yàllaa ko santaane ah faju faju noonu lañ la wax seen làmmiñ ñu ngande yi te xamuñ dara yànguñ ku la ci gën a nganda làmmiñ xamul dara ci islaam ñu dugal la nag ba nga dugg waaw nga dee dem safara nga muñ sa feebar nga toog muñ sa feebar moom moo gën nga naan da ngay dem di bokkaale ji boo dee nga dugg safara mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na waa jooju wala in azaqnaahu naama baada dorra su ma ko defalee xayrin baadal yusr usr ma defal ko xéewal ginnaaw ba mu mettee baada char ginnaaw ba mu nekkee ci musiba doomu aadama boobu ndeysaan nga gis ko mu découragé ci yërmande yàlla wala in azaqnaahu naama bu ko yàlla mayee xéewal baada dara ginnaaw lor yi lor yi nga xam ne moo ko daloon yàlla indi na naama xayr baada char doomu aadama boobu fan lay mujj ak yàlla tabaraka wa taala mooy di sakk jëf di sakk jëf weddi mel ni yàlla mosu ko may dara découragé ci àdduna baada dara ginnaaw lor yi nga xam ne massatu ñoo ko daloon la yaqulunna zahaba sayiatu anni ah man kay wax dëgg yàlla léegi ba ma demee ma sangu ba ma demee waa ji sangu ma rek la yëpp ñëwaat da ngeen naan yenn saa yi nga dégg ku ne ga- ku ku- ku gëmul xarfa fuufa lu ñu lay wax ku gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf loolu lañ lay wax da ngeen naan da ngeen naan gàllaaj takk téere takk téere waaw yàlla yàlla da ngeen naan yàlla yàlla yàlla bay yàlla bay sa tool de loolu lañ lay gëmloo yàlla yàlla bay sa tool waaw loo jàng-jàng nag du tere nag yenn saay nga laal ci lii laal ci lan nga bokkaale takk bi jën wala sangu ci ay kii wala tuur ay nen nangam nangam toj soo soo yeewoo par fajar nga jaar ci sëlëbi yoonu Sénégal yi sëlëbi yoon yi sëlëbi yoon yi ah surtout tali yi da ngay fekk ay nen yu ñu yu ñu toj te sëlëbi yoon yëpp ay nen lañ fay sànni tël tël tël fajar gi day mel ne nen yi dañuy sal salaatoo fii sax jàmm la waaye boo doon dem Casamance la ilaha illallah Casamance sax jàmm la waaye boo doon dem Côte d'Ivoire foofoo garaaw da ngay gis jaaro or bu ñu teg ci sële bi yoon ku ko laal pare nga wala ay billet dollar yu ñu teg ci sële bi yoon ku ko laal pare nga wala sénégalais xam nga dañoo laal ko dañuy dem gis ko rek laal ko sénégalais bu feebaree Côte d'Ivoire bu ñu leen indiwaatee fii fee nga jëm fee cité Thiel leeral xam ngeen cité Thiel leeral foofu nga jëm doo wér mukk dee rek parce que seeni xërëm yi sénégalais africain ak a ñeme xërëm ñun suñu diine yëpp xërëm mu dëcee bam xërëm xërëm ñaata yoon ngay gis nit ci biir jàkka ñaata yoon ngay gis nit ci biir jàkka moo ngi takk gàllaaj ñaata mu ngi takk béjjén wala mu takk lam wala mu takk wëñ wala mu takk xaaw wala mu takk laar wala mu takk petaaw ñaata ñaata kilifa ngay nuyu jaj ne ko nii fii fees dal wala nga ni ko nii rek nga koy akolaat ne ko nii rek yaa ngi fees dal dal dal dal dal dal loolu mu koy dee pour lan la yàlla nee na innahu moom doomu aadama la farixun waaye faxuur ku bëri lu muy tiitar la waaye ku bëri faxuur mooy kuy ngand ngandul doomu aadama loolu yëpp nag kañ la loolu yëpp kañ la mooy bu amee su amee rek nga gis kontaante ñëw na ngand ngandulu ñëw na ñaata yoon la ñuy gis bi ku amul lu mu ngéntee lu muy wax man kay ngénte biir néeg rek laay def ñaata nga gis ko amul dara di takk jabar lu muy wax takk ko jàkka la ñuy def takk ko jàkka waaye bu waa ji amee lu muy wax koo dégg mu ne takk ko jàkk wala ngénte biir néeg amul su amee lu muy wax kenn du ko def ci biir néeg kenn du ko yóbbu jàkk moom kay koñ ba koñ juróomi fan nañ ko def takku jàkk non man takku jàkk laa bëgg koo wax takku jàkk wala ñooñu naan takku jàkk dañoo amul dara gis nga dañuy ne mu ne nañ ko def mu ñu takku jàkk mooy lan mooy na sedd guy bu ko kenn yëg ñetti nit rek ñeenti nit amul problème bu dee ngénte waa ji ne noonu man kay damay xii rek damay dama koy jox tur bi rek dem waaye bu xaas ñëwee nga gis ngand ngand lu gi commencé loolu la ñu lislaam di tere lislaam xamul li ñu nekkee fii ñun liggéey juróomi at ngénteeku liggéey fukki at takki ko jabar toog di noppalu commencé waat à zéro loolu la ñuy def Sénégal nga gis ku jaay terrain ndax ngénte ah ku jaay otoom ndax takki jabar wala du loolu ngeen lañ nekkee wax naa sànq ne lu ñu sonal mooy lu ñu denc lu ñu denc kese moo ñu sonal loolu musiba la loolu tax yàlla mu ne doomu aadama dafa gaaw far la farihun waaye faxuur yàlla mu ne lii ñii nag bokkuñu ci ni mu waxee woon sànq illal musallin noonu la waxee waat fii illal lazina sabaru ba mu des ñi muñ wa amilu saalihaati ñuy def lu baax ulaayika ñii lahum maghfiratun wa ajrun kabir gis nga chaque jour nit bu nekkee ak yàlla rek da ciy génn gis nga ki nga xam ne moom xam na ne mbir yi du ngénte xam na ne jaamu yàlla la takk jabar xam na ne jaamu yàlla la dëj xam na ne jaamu yàlla la lépp dundam xam na ne jaamu yàlla moom yépp ay yem soo ko fekkee muy ngénte doo fa gis ngand ngandulu doo fa gis dara sunna lay def day ñëw rey xaram tudd doomam dem yoonam yooyu ñëw mu ne def naa ko ba pare ah mu ne waaw loolu la diine wax ni benn jigéen suñu benn mbokk day ñëw fi ci dars yi dafa am doom xëy julli fajar ñu tudd kii moo doon fees xar bi ma rey xar bi kii fees ko ñu def lépp ñu dem suñu yoon waa kër ku jigéen ki ñëw ñu ne ah yéen xanaa ngéntewu leen ñu ne ah kay ali kay du ngénte lii ñu ne ah lan mooy ngénte ñun kat gisuñ ma ne ko noonu dafa am ngénte am fo ñun ngénte nañ fajar ma ne ko rey nañ xar bi mu ne waaw ma ne ko tudd nañ xale bi mu ne waaw ma ne ko wat nañ ko mu ne waaw ma ne ko jeex na ah ah ah léegi nag ma ne ko waaw léegi nag mooy fo bi loolu mooy fo bi nag ma ne ko ñun nag diina la ñuy dund fowuñ loolu mooy suñu problème lii ngeen di gis fi après nga lan la ngénte cinquante cin set nag juróom ñaari njaganjaay ñëw ñii jóge Louga ñii jóge ngan ngir ngir ngi neew ñii jóge ñu fas yéene di fecc ba suba loolu la la loolu ngénte la takk jabar gi noonu la def ay di yuuxu def bul dóor bul saaga américain lañ la indil américain lañ la indil boobu ngeen def musiba américain jullit bu takk américain musiba am na ah wala bu xale di jigéen di sëy du loolu ngeen di wax bu ñu ko dugalee ci njaganjaay yaa oto yi ñii ñirang lu ñuy wax bul dóor bul saaga américain lañ la indil innal muslimina wal américaat musiba yàlla ne innal muslimina wal wal mu'minuna wal ay yéen ngay ne innal muslimina wal américaat musiba rek yàlla nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu topp ko yàlla mu ne ulaayka ñii lahum am nañ magfiratun njéggal gis nga képp ku yàlla di defal xéewal nga koy sant yàlla di la teg natt ngay muñ yàlla nee na am nga njéggal waaye bu fekkoon ne njéggal gi rek nga am dana doy yàlla mu ne wa ajrun kabir imagineel buur bu toll na yàlla mu ne dinaa la fay fay bu rëy kon nu mu war a toll nan nga koy imaginer buur bu toll na yàlla mu ne kii dinaa ko fay fay bu rëy nan nga koy natte kon ngay kii mooy adunaam baax na àllaaxiraam baax na yàlla nañu yàlla may ñaar yooyu mooy di ko sant ak di ko di muñ lépp lu ñu teg ci nattu loolu moo doon dar sa tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.